ginnaaw nu yoo bi ñu santaat leen gërëm leen bu baax a baax ànd beeg Aladji Malick TV am na solo lool ànd boobee yal na jum kanam gaynde yi def seen dernier tàggatu goo xam ni gone yi am fukki at ak juróom-ñaar séngam bu ngeen ko gisee daanaka gone yi xar kanam gi nga xam ni moom ngeen gis am na solo lool commencé nan ak li nga xam ni mooy fëgg li nga xam ne mooy hymne national Sénégal. daanaka ADN la ci équipe nationale yëpp yi nga xam ni. ñi ngi tàggatu bala nga siq benn tànk da ngay wane ni sénégalais nga te da nga cee kontaan bu baax a baax jàng hymne national bi hymne boobee am solo bu baax a baax ci li nga xam ne mooy sunu Sénégal gone yi jóge ci loolu ngeen gis loolu ci image bi ñu dàbbar ñi ndànk-ndànk maanaam cëpp cëppi tuuti ci li nga xam ni mooy ñax moomee ndax bu ngeen ko gisee cëpp cëppi tuuti mooy gaañi bëgguñu kenn blessé Amara Diouf ak ñi mu àndal taxawaay ba am na solo lool ci tàggatu gi nga xam ni démb def nañ ko fële nga xam ni moo nekk Tunisie wala Algérie Algérie di dëkk bi nga xam ni moo organisé bi les Coupe d'Afrique te moom teel a toog lool gone yaa ngoogu ngeen gis leen ba léegi ñuy accélérer la cadence yokk mbir mi ndax tey jii match référence lañ war a def Maroc la ñu dajeel di ay xong nopp encore une fois di ay naar yoo xam ni yu yaboon Sénégal la ay jamono waaye fi mu toll nii daanaka léegi carte gi daa commencé jaxasoo ginnaaw bi nga xamee ni Sénégal gu yees moo juddu Sénégal gu yees ki nga xam ni am yéenay raafale lépp lu ne ci wàllu football ci déndu Afrique loolee daanaka li ci des bareetul ñeenti waxtu match boobee moom lay commencé bu jàkkaarloo ak ñi nga xam ni ñooy caméra RTS yi. gone yi bi ñu jógee ci loolu laal bal bi bu baax a baax xool bal bi diis na wala diisul ak ay dóor yoo xam ni yu am solo la waaye ba tey ndànk-ndànk ndax gone yi bëggunu kenn blessé Amara ñi mu àndal bi ñu génnee ci loolu ki ngeen di gis moo nekk ki nga xam ni daanaka moo nekk axe central bu équipe bi la di gone yi nga xam ni ñoom am fukki at ak juróom-ñaar gardien bi ngeen gis ko loolu cawarte gi nga xam ni ànd nag moom cawarte googee moom lan bëgg mu topp ko tey jii bu ñeenti waxtu jotee ndax moom mi danañ ko soxla bu baax a baax ci temps yoo xam ni da koy tëj donte jot naa ñam benn bit ci bile compétition waaye loolee ak football ànd li am solo mooy victoire kut si yaa ngoogu xool ba xam gone yi entraînement bi ñu def jaar na yoon ñaax leen wax ak ñoom nga xam ne daanaka am na gan mu nekk ma yaasin maan ma ko ñëwoon seet si leen bu baax a baax